ci biir dëkk ci xalaat mbir yépp mbir mu rëy la tënk naa ko ci ñaari baat ndax ñu gën koy mën a xam gën koy mën a dégg gën koo mën a dunde ñaari baat yi mooy yan mooy wéetal sunu borom ci lépp doyloo Sëriñ Tuubaa suñ digganteeg moom ci lépp nañ ko tënk foofu la la mooy ñaari baata ca dolli ko nan fas yéenaa sax ci jaamu yàlla sunu kem kata fas sax ci liggéeyal sëriñ bi ci lépp lu baax lépp lu baax ñu jébbal ko ko fas yéene koo liggéeyal kon nag noonu yi la sax ci jaamu yàlla sax ci liggéeyal sëriñ bi te yàlla rekk a tax noonu lekk la kàddu yi ma doon wax ci gannaaw euh, tabaarakallaahu gone yi dellu nañ ca moo di rek sëriñ bi la ci am solo ci nun nan fexe gannaawal lépp suñu kem kàttan te yàlla rekk tax la ca dolli ko nu jublu sëriñ bi rekk di ko jéem a gën a xam di ko jéem a gën a dund jéem gi gën a dund moo di sax ci lim bëgg rek te moom amulu bëgg lu dul boroomam rekk ak wéy ci ndigalal boroom ak bu ak topp sangu bi def yi mu ko booleel loolu foofu tënk bi foofu rekk la nan jéem xam loolu rekk nan ko jéem a dund nag sax ci dakk alhamdulillahi rabbil alamin lépp sëñ yuusu waxaale na ko ci kàddoom yii doxin wi wenn rekk la mën a doon du doon ñaari doxin munta doon ñaari doxin waaye nag yaatu na lool nag dox gi moom yaatu na doxin wi ci gannaaw sëriñ bi wenn rekk la mën a doon won gannaaw àdduna dara bañ caa te jublu sëriñ bi sax ca dàkk la cay des nag mooy yéene sa kem kàttan ci lu baax di def lu baax rek di bañ lu bon rek te sax ca dàkk tënk baa ngoo jërë jëf kon sant rek moo ci des di seereel nag sama bokk yi taalibe yëpp sama bokk yi jullit yépp sama cant ak sama bokki isbu tarxi yi waxoon naa leen ne leen du man du yéen lépp sëñ Tuubaa dañoo jóg rek ma xelmati leen gëstu leen tuuti gëmewuma leen ma ànd booba ba léegi kon nag mel na ni leer na dama ko waxee woon ne ko du man du yéen lépp sëriñ bi xam ngeen noonu fañ tàmbulee di dox ba ci jataay bii loolu duy caaxaan lépp lépp sëriñ bi diggam ak boroom rek léppam daraam génnul diggante ak boroom kon nag lii moom sëriñ bi dong nga diggam ak borom yoonu kenn nekku ci suñu yoon nekku ci xanaa kay di gën a gëm di gën a wéetal di gën a bëgg di gën a jublu sax ca nag loolu rekk la du leneen ne sëñ yuusu kàddu yi dégg naa ko yëpp waaye gëm naa yëpp nag Hizbut Tarqiyyah ak li aju ci moom lépp alal li sëñ Tuubaa gëm naa ko doog gëm naa ko te noonu rek laa fas yéene dund ak yéen incha allah feek maa ngi noy li ci sunu kanam lépp sama xel dal na li ci sama kanam ndax du kenn lépp sëriñ bi dara suutut suutut suut dara suutut lépp ci loxol sëñ na xel dal bu baax nan dundee sëriñ bi rek sunu kem kattan bu ko defee rek ñu wàcc la ca des ñu bàyyi kook sëñ bi loolu rek la nee sant naa leen lool loolu doy na <laughs> loolu nag dëkkook doy rek doomu aadama la fow nag mënu ma leen ñàkk sant waaw hmm. <laughs> doonuma ci dara waaye nag doy teg doomu aadama moo nekk ci ñépp mool moo tax nag mënuma leen a ñàkk sant loolu rek la loolu du leneen waaw lépp jeex na alhamdulilah alhamdulilah na ñëpp tàllal seen loxo na ñëpp tàllal seen loxo mu ñaan na ñëpp tàllal seen loxo xale yi ak soxna yi fañ nekk nañ toog ñu ñoo ñëw teg leen ci yoon na ñëpp ne amin yàlla na fi lagg loolu tamit amin amiin amiin amiin amiin jërëjëf na ñëpp nag fexe ba oto bi mu mën a mën a agsi